réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu jaajëfal leen baax si ànd bi ngeen ànd ak ñun way leen di abonné waaye bu leen fàtte di like vidéo yi dal leen ak jàmm ki nga xamante ni moo di Mor Talla ñu gën koo xamee si Nit Doff moom moomee nag da ngeen xam ne euh, may nañ ko li nga xamante ni daal moo di ab liberté démb ginnaaw bi nga xamante ni ay avocat am doon nañ ko layal doon ko ñaan li nga xamante ni moo di ab liberté waaye mujj na am li nga xamante ni daal moo di ab liberté ginnaaw bi ñu ko toppee nag loo xamante ni daal mooy ay xotti wormaay njiitum réew ak li nga xamat ni daal moo de woote li nga xamante ni daal moo di fipp ndaw ñu wàcc ci tali daal di koy jaayante ak ñi nga xamante ni daal ñoo ñuy jiite. ginnaaw kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko nag si ab vidéo doon woote lu mel noonu daal si lañ ko tegeewoon loxo loxo boobu nag ñu tegeewoon ko nag joon ko si kaso gi mën nañ ay weeri weeri weeri weer waaye nag ginnaaw si nag lañ ko bàyyi li nga xam may daal li nga xamante ni daal moo di ab liberté mu nekk nag loo xamante ni lu neex a neex la rawat na nag ñu nga xamante ni ñoo di ay njabootam ak ñi nga xamante ni ñoo di ay euh, soppeem moom moomee nag di Mor Talla Gueye na ngeen xam ne nag fu mu féete daal jamono ji mën nañ ne mooy si camp ki nga xamante ni daal moo di président Ousmane Sonko euh, président Ousmane Sonko moom nag ba léegi nag moom nag mën nañ ne ñu ngi ko teg loxo ba léegi sax mën nañ ne parrainage am boobee daal ba léegi sax dafa daal di may lu tax suuf